Bon, en ce moment, je suis avec Abdoulaye Kamara. Le problème d'Abdoulaye Kamara, c'est que lui, il peut pas faire l'amour plus de 5 minutes. Bon, mon problème, je suis là affaire de voiture. Bon, je veux le soutenir pour continuer la vie, mais je n'ai pas mes matériels au complet. En fait, je n'ai que les petits choses là. Je veux le soutenir, ceux qui m'ont aidé pour avoir une grosse entreprise pour continuer mes blocs. ci réew mi ak euh, le communicateur traditionnel loolu la yàlla def. Mhm. waaye nag tey da ngeen maa fekk ci sama xarit monsieur le maire Serigne Fallou Amar muy nit ku baax. monsieur kaay di nit ku yiw di nit koo xam ni tubarkalla macha allah yow nag euh, ni nga jëlee affaire bi baaxul da nga may posé ay questions. <laughs> waaw xaaral léegi bu waxee action mu posé la question bi noo tudd. Moustapha Thiam jëwlu Serigne Fallou. bon en ce moment ñu ngi nii ci Yafaari Jesner maa ngi ni ak Moustapha Thiam moom nee na mënul toog bës te seyul mënul sëy ay ah, affaire sëy ngeen di indi moom ngeen ñëw tey yu ñàkk fayda yi bu leen bu leen ñàkk fayda yi seen naan ma ay ay sëy yu kenn xamut sëy mooy lan sëy nan lañ koy waxee ci mbedd ak yooyu sëy kay ci kase daf leen tere attention ey eh waay ndaw xam nga ni yomb nga kafal de ey eh waay <laughs> doo ma rey déedéet mën a rey suul hmm. waaw mais nga ni fan la nga jesner euh, kii xale bu ndaw la juddoogut kii nampagut bu leen ko nampaloo dem leen. <laughs> lan lay namp ween. <laughs> communication yooyu noonu. non la ngeen bokk. voilà mën naa la jël interview 5 minutes. 5 minutes oui si tu veux. alors en ce moment je suis avec Chérif Kouyaté Chérif Kouyaté moom nee na mënul sëy lu weesu 5 minutes. pardon. non j'ai pas dit ça <laughs> non monsieur je suis désolé mais j'ai pas dit ça. yaa fi dàq raxas ah bon ah kon gis nga ne maa ngi jéem de. noo tudd El Hadj bon en ce moment maa ngi ni taxaw ak El Hadj El Hadj moom nee na mënul sëy lu weesu cinq minutes. waa waaw lu ma mënul ma sëy lu weesu cinq minutes quoi merci beaucoup. bon salaamaaleykum en ce moment ñu ni taxaw ci arrêt bi nga xamante ni caga yi puisque ñoom 21 heures la ñoom fii la taxaw di ñëw di xool clients nan lañ di mën a jëlee nan la ñuy a ànd ak ñoom pour defi lu ñuy defi parce que corona bi ñoom daf leen solal couvre-feu bi te au delà de 21 heures mënuñu jote ci client donc dañuy ñëw taxaw ci arrêt yi di xool ban oto moo leen di yóbbaale def leen oto stop loolu noonu nag daf maa jaaxal trop jàkkaare jàkkaare yaa ngi ciy jël man waajalu ma dara man ab Baye Fall cek cek bii laa yor damay xëy di ko wuti hmm. waajalu ma kenn xale yi ku leen topp perte jili laa tudd bon en ma maa ngi ni taxaw ak jili jili moom nee na mënul sëy lu weesu cinq minutes man de lu ma ah waaw yow ay Saint Valentin ay ay lii lu nga wax comprendre ma ngay sëy cinq minutes yi <laughs> wax comprendre ma ko mënoo sëy lu weesu cinq minutes man vingt minutes sax da dam koy def vingt minutes mën naa ko vingt minutes mat sëkk <laughs> merci beaucoup asa nga tudd

léegi di action je te pose la question c'est bon comment vous vous appelez. Ken Ten Master. Ken Master ok c'est bon. bonjour je suis avec Ken Master le problème de Ken Master c'est que lui il peut pas faire le mot plus de cinq minutes. pardon. t'as pas dit ça tout de suite. non non non répète répète j'ai pas entendu. vous pouvez pas faire le mot plus de cinq minutes. le mot de. l'amour. l'amour plus de cinq minutes. Ouais. non je n'ai pas cinq minutes je suis jeune là je suis frais. je suis en forme là ou bien. <laughs> je suis en forme là. vous le faites combien de minutes. Euh, bon le premier. ca peut aller dans les 30. Et après, là, c'est venant euh, la résistance, quoi. Là, quand madame, quand il faut faire plaisir à madame, ça dure plus longtemps, quoi. Nous, les hommes, là, n'est pas trop compliqués, quoi. Merci beaucoup. <laughs> mais rew métti na. métti na carrément. yow lii nga xam boo wàccee ñaar ngay wàccaale suuf. 1000 francs. 1000 francs. <laughs> bilaay loolu boo si passé mu jeex. ah mu waaye du ma du ma dese dara. ah bilaay. waaw léegi da la métti ci réew présentement ñu ngi ni taxaw ak Modou Ndour Modou Ndour moom nee lu ko sonal dafa gaaw a bu nekk ak jigéen. Ah. waaw waaw. jabar ah. si si. bon y' a pas de. ça ah, ok. bonjour je avec Loïs le problème de Loïs c'est lui il peut pas tenir en en faisant l'amour plus de cinq minutes. <laughs> Qui a no ça Non, non, je n'ai pas dit ça. <laughs> Non, non. C'était franc. Ah? C'est un compte. Camara cassé. par exemple yéen yéen a ngi jàng. te après yéen xamoo leen fa ngeen jëm parce que da ngay gis koo xamante ni doctorant la dem na ba jàng ba yéey kayitam mais soit ci wari lay liggéey. Mhm. wala receveur bis lay doon. léegi yéen ñu bëgg a xam seen avis ci loolu quoi ci réew mi. suñu hmm, wolof la wolof bu la yow noo tudd kaay taxawee nii. Serigne kaay Serigne ñëw Serigne. Mbaye Seck Mbaye Seck ak yow. Hmm, Tako Ndiaye Tako Ndiaye. fan lay génn. Télé Sénégal lay génn Télé Sénégal. waaw waaw waaw. Tako Ndiaye ak Serigne Mbaye Seck. c'est bon asalaamaaleykum maa ngi ni taxawal ak Mbaye Seck ak Tako Ndiaye ñoom dañuy bëggante mais dañ ko bëggoon wax réew mi xam ko. Eh, non non <laughs> bàyyi yooyu. sama c'est mon frère. bon on nous a. <laughs> caméra Kassal dama leen. Ndongo Jalika Ndongo Thiat. Jalika. baax na ñaari. waaw bisimilah ban kii la. Télé Sénégal. cooy Télé Sénégal waaw maa ngi caat ak calika. c'est maa ngi ni tax ak ndongo caat ak calika ñoom nee nañu luy seen problème mooy mënuñ toog journée te duñ sëy laa ilaha illallah ay waa doom nay bul ma dugal fii réew mi toll. <laughs> du ñu sëy ah non ñun moom. wax dëgg yàlla bokk na ci artistes yi nga xamante ni ah affaire u sëy moom boole wuñ ko suñu affaire parce que itam amaana suñu biddiw bëggu ko daal. yow li nga wax réeréer de. non dama doon dama leen est ce que yow est ce que yow Saint Valentin bi Kalman. Eh, ah. <laughs> waaw man may marié ku baax man pare naa ci Saint-Valentin. mais doo jël ci pimp yi ak lagare yi. non feeraay yi baax na baax na pimp ak lagare yi lay yóbbu bu la yàlla dugal ba nga bàyyil feeraay ah, yi. baax na waaw baax na may ñu ko. Abdou. Abdou ah. ñu ngi nii taxaw ak Abdou Abdou moom nee na mënul toog journée seyul. mu ne. <laughs> bu ma rey. <laughs> loolu mënuma ko. comment ça se nu muy demee noonu ko hmm. waaw waaw waaw baax na. asalaamaaleykum en ce moment ñu ngi ni taxaw ak Mamadou Diallo Mamadou Diallo moom neen benn problème lam dafa gaaw a daanu. waaw ah, asalaamaaleykum maa leen di di leen ziar bu baax a baax waaw. jeex na question waaw. <laughs> Ah? noo tudd comment tu t'appelles. comment tu t'appelles. Ah? Ahmadou Bamba Diop ah. Eh, sell la yor de. Eh, baax na c'est bon as en ce moment ñu ngi taxaw ak jooba jubba moom nee lu ko sonal mooy mënul def te du utiliser les préservatifs kiss <laughs> ah loolu moom ah man duma duma consommateur <laughs> na dama dama bëgg jigéen non bañu ma jigéen non non bañu ma ko man man deew mën naa la jël interview interview waaw c'est bon action asalaamaaleykum en ce moment maa ngi ni taxaw ak deef deef nee na moom benn problème la am dafa gaaw a daanu eh, va nous dire. Désir. Oui. Ok, ok. Bon, en ce moment, je suis présentement avec Désir. Le problème de Désir, c'est que lui, il ne peut pas faire l'amour plus de 5 minutes. Pas plus de 5 minutes mmh. Non, 5 minutes, c'est trop peu. Mmh. C'est peu, pourquoi 5 minutes, c'est trop peu. On peut faire l'amour pendant, pendant 2 heures, pendant 3 heures. 5 minutes, c'est peu. Mais vous, vous n'êtes pas un humain. Non, mais c'est vrai, c'est vrai que pour un humain normal, je veux dire que l'acte euh, sexuel est fait pour euh, procréer. Donc il suffit peut-être de 30 secondes pour, euh, pour, pour, pour, sortir, pour jouir. Mais sinon, quand on veut donner plus de plaisir à sa femme et en, et en recevoir aussi, je pense que euh, on ça peut aller au-delà au -delà de 30, 40, 50, euh, voilà. Parce qu'il y a des femmes, il y a des femmes qui ne sont pas satisfaites au bout de 5 minutes. Hein. On est bien d'accord. Voilà. Vous vous appelez désir, quels sont vos désirs bah, Mon désir, c'est de toujours bénéficier de la grâce d'Allah. merci beaucoup merci. bi doxaan bi doxaan bi ils sont en train de doxaane eh, eh doxaan bi loo fa loo fa jëlee loo la la booy wax booy bi tees booy bi dafa bañ wala dafa nangu. caabu ji gars yi lañ. da laa jaay pare. gars yi ñoo ci mujjee a xam. booy daf lañ jaay pare moom moo oto. non ma jaay. nangu moom ah. non ma ko bàyyi. Fouad baal ma ko ci jigéen ngay wax. mënu benn benn cinq secondes rek. benn cinq secondes cinq secondes xaar. ok bu sama ah. tax Fouad taxawal rek. en maa ngi nii taxaw ak Fouad Fouad nee benn problème la am dafa gaaw a daanu. Fouad waxoo Bon, c'était tout aujourd'hui avec Télé Sénégal. Nous vous donnons rendez-vous prochainement, mais n'oubliez pas de vous abonner. Après ngeen xam nga bouton bu ndaw bu fi nekk foofu noonu ngeen activer ko ngeen xam ne à chaque moment bu ñu dugalee vidéo di ngeen ko jot. D'ici là, portez-vous bien. Derrière la caméra, c'était Rachid. Présentation Bachir, KMB di leen jox rendez Kirip kirip pap pap rugu tat tat.